ba tey rek ci xëtam gu njëkk ci leeral point net prison de Mbacké entre promiscuité mauvaise condition un dortoir de mètres carrés pour cinquante nga xamante ne mooy prison bële ca Mbacké gannaaw rek gi ñu li nga xamante ne mooy xaj-xajal gi fa ne waaye tamit ak dundin gu metti gi nga xamante ne rek mën nañ ko nemmeeku ci biir prison ba tribunal de la grande instance nag bu nekk fële ci Diourbel ñoom nag dafa daal di woon rek di jugé ci lu toll rek ci euh, huit personnes ñoo xamante ne ca prison ba lañ nekk waaye tamit lu tamit dañ leen a daal di nemmeeku rek lépp loo xamante muy trouble rek ñoom dañ koy daal def waaye ñoom ci seen i wax nañ ana lan moo waral yi tamit xeex googa daal am ba sax lu ci toll rek ci eh, six gardien daal fa am ay gaañu gaañu waaye tamit ñu mën a xamle rek lépp loo xamante lu ko waral mooy eh, dundin gu métti gi ñu xamante rek nemmeeku nañ ko ci biir prison ba ñoom nag ñu ngi toll ci eh, personnes yi nga xamante rek ñu ngi leen di daal def ci loo xamante ne muy ay bouteille yi nga xamante ne mën nañ ko jaayee cent franc foofu ca prison ba deux cent daal lañ koy daal di jaayee te foofu sax sax pour sangu wala pour naan loolu doy na waar moo la prison de Mbacké moom daal li mu daal di xamle mooy robinet boobu day daal di xel pour sax yenn bouteille yi koy jaayee dara amu ca mu daal di xamle li da toll rek ci 293 détenus maanaam ay doomu aadama yi nekk foofu ca prison ba dañ leen daal di rek séparé ci six chambres yi nga xamante ne ñu ngi fa waaye daal ñu mën a xamle rek ne détenus yooya muy huit détenus yoo xamante ne dañ leen daal di woon jugé rek daal lañ leen tëdd rek ci lu toll rek ci ñaari at tëdd daal mën ferme loolu daal lañ daal di xamle gannaaw rek giñ laal daal di jugé fële ca tribunal bu Diourbel ci jeudi ji ñu jàll